annoncé woon sànq rek dañoo jiite tey ak jalgati xibaar waaye xalaas a ngi nii di egsi ñuy dalal rek Mamadou Mohamed Ndiaye ak Boubacar Diallo maa ngi leen di nuyu di leen ziar.
soxna si nuyu naa la ziar naa la xam nga Mamadou xam nga dama dégg sànq ci reportage bi góor ñu bëri dañoo wori waaw góor ñu bëri dañoo war parce que ni mu may ni ma ko gisee nii mu ne yàcc ni ah daa nuru ko wari. ca laa jëm de la nga doon laajte sànq sax ndax moomu ko.
waaw gis naa fi benn meew ak suukar ak café waaw mais kër gi tam am na ñu wari de.
yàgg na. yooyu ma xam ne deux jours wari.
yooyu ma waxal ko moom loolu baa ma wax.
waxal ku ko moom. waxal.
ah d'accord naa di bàyyi di on t'écoute.
non naa bàyyi wari ma de waaye bu waaye ci laa jëm.
da ngaa bañ a wari te gis naa tam ci yéenekaay bii di l'observateur.
waaw.
genre xeetu yu bon yooyu ñuy tox.
yamba.
waaw ñu.
wuy di ko ma ndogoo ëpp na.
wuy ma waaw.
looloo ma metti dama ko revue de presse te jàllul.
ah dama ko revue de presse te jàllul looloo ma.
mais noonu ñooñu gis naa ko ci yéenekaay bii di l'observateur. mais ñooñu ni ñuy dogee seen koor doy na waar.
ñoom ñooy dog seen jëm bopp. ñu laxasu bàyyi fa.
bon bi ko dogee sa koor.
mais yamba neex na.
ah laaj nga mbott geenam na.
Boubacar yow yaa fi toog fii limoon may xeeti yamba nga.
li xeet yëpp xam naa xam nga moom xam naa xeet yëpp.
jaase wàññil ci yoon bi tuuti.
ma ne ok aha xam naa xeet yëpp.
waaw.
waaye moom dama lay wax lii ma lay wax nii.
Hmm.
déglu ko bu baax sama àdduna. mësaguma tux cigarette.
Hmm.
mësaguma.
waaw loo koy wax di ma xool mel ne ma damaa mos a tux man tamit.
non non dama lay wax rek man mësaguma tux cigarette.
ah cigarette ba léegi mu nekkee xale ba léegi mësaguma tux cigarette.
loo tux yamba.
ah loo tux yamba.
mësaguma tux kimmeeguma ba léegi.
moo ne ñi Yow lay susa ma- rek nee nañ da ngay naan rek. Boubacar day màndi rek.
boo déggee loolu.
ah mooy yow nii yooyu ne dañuy wax rek man taxoon bu ñu koy ay ree daf may jàpp sax.
oui ma ah.
ku ku ku attanul cigarette.
lay doy sàngara.
looy doy sàngara ku attanul cigarette.
loolu de yéeme na.
looy doy sàngara. non non non non.
Ni- ni dañoo non dégg naa ko nag.
non waaw non loolu loolu c'est normal que nga dégg ko.
dégg naa ko.
mais xoolal.
man lu ma dégg dinaa la ko wax bay woo ñiy wax nañ ma moytu lu ma dégg dinaa ko wax.
oui ma. non xoolal. di nga ne ma naan ji laay ree.
waaw.
mësuma yore kaasu sàngara.
Hmm.
mësuma tox cigarette.
ah sob na yow lu ne nañ la ba ko léegi waxal.
màgg naa de.
lu ne nañ la ko waxal da ngaa sob Boubacar.
bu yaboo de damaa ma ne sopp.
bës ko.
waaw man xam man la doyen.
non jaase weerul xam nga.
jaase yoon yii fu mu koy denc laa bëgg a xam wuy ma Boubacar dëkk sama wax ji bari yëpp nuyu ma auditeurs yi ah yow nag xam nga su ma suñu tiimantee rek.
Waaw, mooy loolu day- day waar.
dañuy nekk di wax rek.
non moom kay jàkkaarloo moom Mooy day loolu, yéeme day mooy loolu, yéeme mooy loolu.
waaye yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu baax a baax.
alhamdulilah dellu si ci di xalaat nuyu mbokk auditeurs yëpp.
waaw xam te di nga- leen ziar.
waaw xam nga tey dama ko dañoo yoxal jalgati xabaar waaw waaw waaw.
waaw xam nga kooku mooy yuuxal.
waaw ma ngoog yuuxal naa la bu ñuy daan rawante bi ñu nekk xale.
yoxal nga naan yoxal non yuuxal ñun yuuxal lañ daan wax.
Waxuma am dëgg.
non yow fële nga ne ñu fii la am Medina yow Touba nga ne yéen Touba yoxal ngeen daan wax.
da ngeen di déformé wolof yéen non ñun yuuxal.
da ngeen di déformé eh ba yuuxal naa la.
ma demee Bawol bay dégg ñuy xolof ni may kontaanee ah ah d'accord acca bismillah.
waaw léegi euh, Boubacar waaw.
dama lay indil histoire bu doy waar incroyable mais vrai
ah bon.
waaw incroyable mais vrai.
vrai ah Boubacar ku nekk Vélingara ah amul lum lekk amul lum jox ay doomam dëkk ba metti ah mu ñëw Ndakaaru amul fu mu dal am xam nga fu mu nekkoon Mhm.
pompier pompier men.
ba ay bo- Boubacar du ma sax commentaire ndax xam nga yenn sax boo ko de nettali ci làmmiñ borom la dàqee jaasa jox ma sama benn mbokk sa mbokk bi nag eh, jëkkëram eh, kii yaayam dafa gaañ papam gaañ léegi jëkkër bu ñu ko mayoon moom tamit mu gaañ bàyyi ko ak xale yi léegi magu jëkkëram jël ko maanaam doon nu ko daal tak léegi nag magu jëkkëram tamit dem ba feebar maanaam daal mënatu liggéey bët yi leen dem waaw mu gomb daal léegi nag waaw complètement waaw léegi mu toog daaw nag eh, demoon nañu moom ku jigéen ki eh, jiwoon na ay jiw jiwoon naa ay jiw mais daaw xam nga dafa taw ba mu yàgg luñ doon jiw musul ñor eh, mujjul ñor maanaam dafa kii ba mu yàgg mu taxaw Eh, taw bi taxaw affaire bi yow woowu léegi nag eh, ren bu toog dëkk ba dëkk ba ba amatuñu lu ñu lekk moom ak doom yi ak jëkkër ji parce que jëkkër ji mënu liggéey mu toog foofu ba amatuñu lu ñu lekk daal waaw léegi nag mu ñëw Dakar fi man daal damaa jékki-jékki rek ñu woo ma ñu ne ma est-ce que gisoo diw ma ne leen gisuma ko ñu ne ma ah demal seet ko parce que moom jóge na fi depuis am na une semaine jóge na fi léegi ñëw na ndeke ñëw na pompier mu ngi mu ngi foofu nekk na pompier une semaine waaw boobu yorul sama numéro yorul dara ma dem pompier di ko wër yàlla def ma gis ko léegi nag ma yóbbu ko mais ndew si daal fu mu nekk nii semaine bii passé alarba bii passé la yóbbante woon doom yi deux mille francs pour ñu am li ñu lekk deux mille boobu dañ koy jënd ceeb comme ça sombi la ñuy def sombi ñu defee sombi tey tuuti ñu coppati bu demee ba kii semaine bi ñëwaat maanaam alarba bi ñëwaat mu yóbbantewaat deux mille fekkee am na deux mille mu yóbbantewaat ko boobu lu ngeen bokk.
kooku ci rakk la ma feete waaw sama mbokk la ñaata doom la am.
eh, ñeenti doom ñeenti doom.
ñeenti doom daal doom yi ñoom fuñ nekk.
doom yi ñu ngi dëkk ba ban dëkk.
eh, côté Vélingara waaw côté Vélingara mais doom yi nag ñu ngi foofu léegi moom doom yi ay mag lañ.
waaw am na ay mag nañ tuuti de mais maguñu noonu parce que amul gu eh, ah, ku mag ki kooku amagul 10 ans waaw ku mag ki amagul 10 ans yeneen yi moom ay doom yu ndaw la léegi moom lan lay def Dakar.
ah moom dafa ñëw fii mënul liggéey parce parce que déggul olof déggul dara ci olof mënul liggéey te parce que liggéey fu mu dem rek dañ koy wax ne yow da ngaa boot mënoo liggéey ah dafa yor doom.
waaw dafa yor doom léegi nag moom bu fekkoon mënoon na liggéey mënoon na yóbbantewaat foofu doomam yi pour ñu am lu ñu lekk mais mënul liggéey parce que déggul olof déggul olof ba pare dafa boot léegi moom une semaine bi mu def garage pompier lu mu doon dundee fu mu nekkoon ku ko yoroon.
waaw foofu xam nga rek sénégalais yi dañoo baax bu mu nekkee pompier eh, nit yi daal am na am na lakkat pël yu mu daje foofu ñoo ko doon dimbali foofu ñoo koy jox lu mu lekk fu mu nekk nii fu mu dekk fu ñu dekk nii instant nii parce que man munu ma ko dimbali dara man awma dara damaa feebar mais wutal naa ko fu mu fanaan quand même léegi ñii ñi dekk foofu comme que instant yi ci weeru koor lañ nekk bu ngoonee dañuy dajale foofu ay bool yu bari mais moom parce que mënul lekk yenn saa yi day fanaanee jooy parce que day xalaat doomam yi fële lekkuñu ak jëkkëram bu mu bàyyi foofu loolu mooy sama problème bi yenn saa yi day fanaanee jooy ci néeg du ma mën a nelaw sax ma waaw parce que ñoo bokk nekk mënu ma ko luweel nekk awma doole boobu ñoo bokk benn nekk
lii de kenn mosu koo gis liiral message bi nii.
xam nga ku ne pauvreté amul Sénégal da ngay wax Mhm.
ngir yàlla rediffusion xalaas fuñ koy dugal xam nga ku sa faatee mokkul doo songub saar Lamine Samba koy wax ah déet ñun ñàkk ba ñu ko xam nga rediffusion moom yomb na Waaw, da nga waaw.
jël rek tegaat Waaw.
mais fuñ koy dugal moom la ñu amul Mhm, mhm, fuñ mhm, koy dugal.
mhm. mais. euh, voilà ñu jël heure grand jury waaw nañ ko dugal nañ ko rediffuser heure grand jury.
heure grand jury mais xam nga jafe-jafe bi fu mu nekk.
ah dëgg-dëgg.
mm.
euh, Ndakaaru.
mm.
Ndakaaru.
Dakar waaw jafe-jafe yi fi ne.
mm.
ah mm.
ci pour nit liggéey.
mm.
rawatina ku déggut wolof. rawatina ku jàngut.
mm.
ndegam ñi Ba jàng yor doom non rawat ñi jàng.
mm.
yor seen i diplôme.
Mhm.
ñoo gisut liggéey. ñi jàng yor seen i lijaasa. ñoo gisul liggéey.
mm.
waxatuma laak ñu jàngut waxatuma laak ñi fi ñëw te dégguñu wolof Mhm.
waxatuma laak ñi yor doom ah tartar yi fi ne fii ci Ndakaaru Loolu nii foofu.
tartar yi fi ne mais nag tartar bu am Dakar mais lu ko dàqee àll ba lu ko dàqee Vélingara waaw mais foofu xëy na moo gën a tar dée waaw moo gën a tar waaw àll mais bi.
xam nga foofu am na am na bay Boubacar waa kaw gi jommi nañ déedéet xam nga foofu am na liñ naan ci tubaab vivre de soudure moom Waaw.
lañ amul
waaw waaw loolu tam waa ngi kaw ci ga dañu jommi waaw am naa fi benn waay boo xam ne maîtrise am droit la am Mhm.
nekkoon adjoint muy jiite faculté de droit bu université Cheikh Anta Diop mës na nekk adjoint benn temps Mhm.
xam nga fa mujjee Mhm.
coxeur pompier mi ngi ki diplôme am wan na ma ko Mhm.
xam nga loolu nag moom mooy li nga wax rek ndekam ñi yore lijaas ñoom ñi yor lijaasa jàng ba yey kay Mm.
ah yoroo gisoo liggéey ah moo tax ku ci waay am loo jàpp na nga na nga ci jafandu bu la bu lay diri na nga ko jafandu mu gën a wóor de na nga ci jafandu bu baax a baax adduna bi dafa dafa dafa doy waar de non dafa compliqué ba pare nag dafa yëngu adduna bi waaw waaw dafa woo ko su daal ci gàttal lu ci waay am na ko jàpp Boubacar waaw bi may indi nag bi moom dafa yéeme aha kii benn xale bu jigéen la bu am 22 ans aha demoon di xool yi gynéco xam nga gynéco gynéco waaw mooy mooy mooy ñi nga xam ni maanaam dañuy dañuy toppatoo jigéen ñi di leen di leen ñooy faj daal euh, maanaam daal jigéen ah ba tey waxoo loolu de ku dul gynéco dina faj jigéen waaw non jigéen infirmière day faj jigéen waaw non defal ndànk docteur day gynéco wax ma luy gynéco d'abord gynéco waaw mooy ki nga xam ni moom ci maanaam daal euh, partie intime u jigéen yi Partie ci lay intime mooy liggéey lan?
hein partie intime mooy lan mooy daal ci awra yi ci lay liggéey waaw d'accord kii dafa kii ci lay liggéey maanaam docteur la boo xam ni waaw jigéen jigéen lay faj Mhm.
ci partie intérieure am daal Partie maanaam ci intérieure.
biiram ci biiram Yaa wala ngi- fa jafe barki yàlla lu leer nga wax Aha.
wuyu ma Aha.
mu demoon ci gynéco bëgg seet boppam Mhm.
jox ma ko jaas man dama demoon def consultation gynéco après gannaaw boobu xaw ma ko sax mais c'est la première fois ma koy gis man dafa dugg rek tubéb bi daa xumb ma ne ko lay def nii mu ne ma yaa xumb bi daal di xumb xumb mooy kii daal ma bëgg kii daal après ma ne ko lay def nii mu ne ma yaa xumb suma tubéb ci yow laa koy sotti ma bëgg daw ma bëgg yu man dama demoon def consultation gynéco après gannaaw boobu xaw ma ko sax mais c'est la première fois ma koy gis man dafa dugg rek tubéb bi daa xumb ma ne ko lay def nii mu ne ma yaa xumb bi daal di xumb xumb mooy kii daal ma bëgg kii daal après man dama demoon def consultation gynéco après gannaaw boobu xaw ma ko sax mais c'est la première fois ma koy gis man dafa dugg rek tubéb bi daa xumb ma ne ko lay def nii mu ne ma yaa xumb bi daal di xumb xumb mooy kii daal ma bëgg kii daal après ma ne ko la def nii mu ne ma yaa xumb suma tubéb ci yow laa koy sotti ma bëgg daw ma bëgg yuux mu daa may mbéj ma daan ci kole ma bëgg yëg sama kaw ma jël suuf bu nekkoon foofu ma daa ko koy jëm ci tànk après ci laa daw ban hôpital la hôpital Jeune Ab Thiès yow gynécologue boobu da nga ko fa daan dem di ko seeti non kooku xaw ma ko c'est la première fois ma ko loolu ku gis fa daan jëkk doon seeti kooku kan la woon kooku sax xaw ma ko monsieur Sey daal lañ ko daan wax mais kooku moo la daan seet waaw léegi bu mu la euh, bi nga fa ñëwee bi keneen nga fa fekk keneen waaw rek kooku xaw ma ko moom lu mu la wax ñun daal waxuma dara li ma wax rek loolu la ma wax.
mais yow bi nga ñëwee lan nga wax lan nga ko wax da nga ne ko dama bëgg euh, xool amoon infec- infection vaginale ma ne ab mu ne ma d'accord yow da nga am borom kër déedéet mosuloo sëy Déedéet.
ko jëlee infection bi ah dama doon saw deret après ma dem kii poste santé bu nekk fene suñu koñ mu ne ma ñoom mënuñu koo faj naa dem hôpital régional ci laa demee nag après ci laa jëlee problème bii nag boobu tey delluwaat ma hôpital léegi waa ji bi nga ñëwee euh, fekk ko fa yow nee nga du waa ji nga fa doon seet mais keneen la kooku est-ce que euh, maanaam euh, médecin la wala lan la mais do- est-ce que dafa sol blouse ah xaw ma daal blouse verte daal la solo même xaw ma na mesera wala day balee xaw ma daal ndax hôpital régional doo xam ne docteur bi ak kuy balee mais docteur yi blouse yu weex la ñuy sol mais kooku moom lu vert la sol waaw kon mën naa nekk ci balekat yi waaw mën na nekk léegi mu ne la lan ñun daal loolu rek la ma wax waxuma dara
léegi bi mu bi mu bi mu ne tuba ji dafa xëm dafa dafa xumb léegi dafa àgg sa kaw non àggul surtout àgg sama kaw ndax balaa ma egg sama kaw ci laa jël ciseau bi daa ko jëm ci tànk dafa la tëral ci lal bi mu def ma mbéj ma daan ci kaw lal bi mu bëgg a def lan mu bëgg yéeg sama kaw ba daa koy jëm ciseau ma daal daw kon dafa summi woon tuba ji ba pare waaw léegi nu mu def après man fa laa ko bàyyi ma daal daw ndax instant yi dama tiitoon xamatuma fu ma nekk waaw yow bi mu la defee loolu ba nga daw génn hôpital bi lan moo tax boole woo kook euh, agent de police xam nga am na ay gardien ci bunt bi wala nga dem ba ci euh, ba ci directeur hôpital nga waxoo ko dama tiitoon rek léegi par exemple yow bu bu nga delluwaatee hôpital léegi euh, est-ce que boo jàkkaarloo waa ji daa ko xamee waaw mais man daal boobu tey delluwaat ma hôpital na dama ragal waa ji nu mu mel naa ji dafa gàtt nii ñuul xaw am yaram tuuti waaw sol blouse bu verte verte waaw ci ci ci fan la exactement boo duggee ci hôpital régional ci fan la man xaw ma sax nafa foofu dafa rëy c'est la première fois ma fa doon dem
mais daal salle gynéco gynécologue quoi waaw
kon yow docteur bi nga doon seeti fekkoo ko fa kooku nu mu tudd ki ma fa daan seet monsieur Sey monsieur docteur Sey keneen daal nga fa fekk mu bëgg a àgg sa kaw waaw fi mu ne jamono ji est-ce que wax nga ko say parents waxuma ko kenn yow rek laa ko wax gum lu tax dama tiit est-ce que mënoo dem police nga def déposition man daal mooy loolu dama ragal moo tax ma ñëw wax ko xalaas yow xale nga waaw 22 ans la am 22 ans la am da ngay jàng waaw formation laay def stylisme deuxième année
waaw lu mel nii moom mosulaa dal déedéet musuma daal
waaw na nga ko gisee loolu ñaaw doy na waar te ñaaw na de ah man instant yii noonu dama ne parce que damay bu leen ñëwee sama xel damay paniquer quoi moo tax mbaa jàpp la psychologiquement doo toog di ko xalaat parfois damay toog école mais absenté prof yi di ma laaj mais du ma leen wax yow daal xalaas nga ñëw wax ko waxaguloo ko kenn waxuguma ko kenn est-ce que doo ko wax say waajur non mënuma ko wax sama lu bopp tax dama ruus maanaam lu mel ni mosulaa dal daal waaw léegi daal looy sàkku maanaam euh, mbir bi buñ ko déggee mën a dimbali rek ba ma fàtte moment bii daal loolu rek laay kii ku mel ni un psychologue wala daal pour nga fàttali waaw est-ce que xalaatoo ne mën ngaa dem ci directeur hôpital bi nga signalé ko parce que lii lu doy waar la mën na koo def keneen ah ah peut-être bu ko déggee xalaat dina arrêté lu muy def kon daal ci hôpital régional la amee waaw Amadou Sakhir jigéen bu Thiès waaw mu ngi sama xel bi daal man daal bu ñëwee rek damay paniquer damay tourmenté ba mën naa yàq sam njàng de ah ndax parfois damay toog classe ci absenté man mooy loolu kon yow mosuloo am jëkkër déedéet vingt deux ans nga am waaw waaw lu mel nii maanaam lan ngay sàkku ci nit ñi bu ñu ko déggee lii ah man daal maa ngi sàkku daal képp kuy def constat génico balaa ngaa balaa ngaa dugg ci saab dina leer na kii génico la ok
mais kon ñun est ce que tooñu gynéco yi kooku du gynéco ah mu de moo moo ma wax ma wax ne ci ah loolu la leer si ne di ne ko.
non kooku du gynéco da parce koo que gis.
xam nga gynéco day am xel mu dal gis naa tamit tey jii ci yéenekaay bii di l'observateur la defe naa ah euh, ñuy wax affaire gynécologie populaire populaire.
populaire Waaw.
populaire la xam nga gynécologie journée yi damay xëy naan ko man. xool ko na- gynécologie waaw ak ak corps waaw ah Aha.
dossier bu intéressant bu intéressant.
mais lii nii nii nii nii nii nii nii nii nii waaw.
yow tamit ah non man.
kii du gynéco doo ko ne la gynéco la man dama laa laaj luy gynéco.
waaw mais kooku du du gynéco waaw et puis yow.
et puis gynéco sax day ànd ak dal waaw.
ànd ak dal jàpp jigéen mais ñi dama tax gynéco yi mënuñoo Toppatoo doon leen.
ay jigéen.
du am na yu jigéen am na yu non góor ñëpp jigéen la ñu waroon doon.
bu bu pour la ah pour la.
dañuy jàng rek jàng rek la waaw yow wuyu dama ma.
mel ni da nga ne lii nit rek ñii rek ñoo ko war a jàng lan.
lii ñii rek ñoo ko war a Babacar jàng wuyu ma.
oui ma non non du loolu mooy wax bi waaw gynéco day ànd ak dal fu mu ne boo ko gisee gynéco en général day dal dalal bu ci ban fan na.
ci bépp day teey mais waa jooju noonu gis jigéen rek daraam taxawatul kooku du gynéco maa ko wax du gynéco du gynéco de waaw léegi.
Du gynéco.
waaw mais hôpital Amadou Sakhir jigéen fa la nekk xam naa mënu faa réer moom.
ah waaw nañu ko lijjanti.
xale bu nax nax xam nañu xam ni daal ci Nañu ko hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène boobee waaw nekk xale bu ci- jigéen bii am na lu ñu ko fa def waaw point luñ ko fa doon bëgg a def.
waaw lu ñu ko fa doon bëgg a def point ba pare dafa tourmenté xale bu jigéen bi waaw.
dafa tourmenté bu baax a baax a baax a baax Boubacar.
waaw Jërëjëf, ba suba ak jàmm.
ba suba ak jàmm di mañ daan sango maa yi dëkk bo
Publicité sur RFM. yaa ngi jóg moom